si jàmm ak dal choisir le kaolak wa bi gën apte pour défendre intérêt kaolak fuk naane ne moy mooy objectif journée bi tay di xol élection bi d'une manière générale bu xolé xoolee si jàmm la am ci lepp ci dëkk yi ñaari parti yu mag yi ñoo fi nekkoon Dakar am fay incident ñukoy regretter da fuk naane même ñom ressaisir nañu dañuy ñaan rek climat de tension bobu yam fi parce que bu fekkee dafa nar a dem après les élections aussi du njëriñu réew mi na ñëpp woote jàmm doxal jàmm ñu àndandoo tabax. waaw administration bi dañ leen di félicité bilaay amuñu morom impartialité bu mag ku ñu mën a jàppale sax même bu la dépassé délai dañ la jàppale pour rek permettre ñëpp participer maintenant ce qu'on déplore mooy présence su parti politique yi 41 listes yi ñi ci présence bureau de vote yi néew nañu ak ay mandataires maanaam am accompagner le processus ba mu yegg. loolu nag war nañ ko seetaat xaw ma état moo ci dugg ci bëri nag problème fay moo tax parce que xale yi li ñu leen jox bu ñu fa yendoo rek kii lam loolu mooy wax mooy waral du ñu am représentant donc loolu nag moo war nañ ci seetaat développement de travailler sur la conscience citoyenne ni ñi xam ne élection ñëpp a ci war a jàpp mais aussi état tamit xool ni muy accompagner ñiy représenter parti politique parce que aussi ça coûte un peu cher